Ada seri rumah sakit di Aji Hawi Jalan, di Dodo.

Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen ci ndongee di jaare ñëpp di baal ak ñëpp. ak Abdou Ndiaye chef de gare ak nga wax délégation kenn ku ne ak délégation. waaw loolu ñu rafetlu la. ci julli sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf jërëjëf Xaali بسم الله سأتم سجرا एक दुकान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 bii daal xulóog la mën a xaba. Muhammadun Muhammadun Muhammadun misaaluhu lam yaati fii Muhammad wa abadan la yaati sabana ramana lam yuridi mis na la fo fa mi la fo la yuridi loo ziyaadatu loo baraa yow ma alatu wala la soba wa nabi ku soxla jàll Makka bil muntaqa Muhammad kuy magal Serigne Muntaqa tuul bil muntaqa Muhammad khayrul wara khayrul alam mustafa khayrul wara mukhtar inda sabr la ilaha illa waaw loolu ñu ko waxee rek sunu yaay ajaan Ndeye Mbaye mooy sër Adja mooy sër suñu yaay ku bëgg yonent bi mu ngi doon di joxe barkeeloo macha allah ànd ak délégation bu am solo ñu di ko ndokkee bu baax bii alaaji Ablaye Tine la alaaji Ablaye allah moom it ñu koy jaajëfal bu baax bii alaaji Pape Kébé Maguette Diouf aram Kébé mais moom moo ko indi waaw bii euh, Iba Amar Niang suñu euh, baay alaaji Diagne mooy assi yi nañ ko indi nii na ñëw ma ma may wax na ñëw na ñëw ci fëtëy amin sa ñëw moom it lii mu def nii bëgg yonent bi la rek ndax ku ne xam na ni mu ngi ci naqar mu ngi ci tiis ndax soxna magam moo génn àdduna muy soxna si moo ko jaww kon bu demee ba loolu lépp am te bëri dem lañ ko doon ñaanal mu indi lii bëgg yonent bi moo tax soxna dama jërëjëf nee ko kontaan nañu bu baax a baax a baax sekk jërëjëf yéen ci ko woow bii ba sunu mbokk mi di Serigne Ahma Fall Serigne Mame Cheikh Fall bi ci def Adja Penda Diop présidente a topp Cheikh na Cheikh Sadou moom it mi ngi nii ci kaw tribune bi ànd ak délégation ñu koy ziar bu baax beneen bi ci des euh, Ndeye Kébé Aliou Sarr allah mi ngi nii toog moom it ànd ak sama mbokk yi ñoom Ndeye Kébé sama yaay Adja euh, Ndeye Niang ak délégation bu am solo ñu ngi lay jaajëfal bu baax xam naa yooyu yëpp bàyyi jaajëf dañ ko koy résumé mu dëkk ko ba nga xam si incha allah bu ñëwee rek dina am fu ñu mu euh, bii madame Aïda Thiam bii fêteur de l'islam madame Adja Thiam Aïda Aïda Thiam waaw moom laay wax léegi nii moom dama koy faral di wax ndax sama jaam la may sargam waaye yàlla dafa dogal bëgg yonenteem wan nañu ko keroog bi ñu jógee màkk ñu jàkkaar ak moom bàyyi xel ñu du bàyyi mu fen ba nu jàkkaar moom moom wan nañu ni ku bëgg Seydina Muhammad la moo tax keroog bi ma ne ñoom Xadi Mbaye service bi dañ ma ko dara jaale man ne ko dara jaale koo bëgg kon yàlla yàlla fay la mu àndal la délégation bu am solo sama taan maa ne bu bëgg ne waaye sama mag jee di fàq kopp mbay bu nga ko tuddee rek tudd nañ délégation bi yëpp ñëw kon ay da kontaan nañ bu baax soxla fàq kopp li nga war a wax dañ ko xam waaye dañu fekk jataay bi euh, bii ci des nag moom monsieur le maire de la commune de Kébémer soxna nañ ngiri teg lañ ko sawal xajaa birigo loolu lu war la diggante bi monsieur le maire xale yépp rek macha allah nday Kébé mii tey ci délégation bi la waroon bokk tey daa bokk ci association bi rek mais ajaa birigo bi biñ ko waxoon mu jàppale leen ci mooy terrain ndax terrain bi nekk na terrain boo xam bëgg nañ ko ubbi ci daara ubbi ci fajukaay ubbi ci loo xam si incha allah loolu dina sotti kon ñu ngi noonu lettre yaa ngi noonu yooyu ko jot a ñëw. bu day baw man mooy jiite moom laay wax. ndax doomu imaam nga macha allah jërëjëf jërëjëf Cheikh Amar ñu ne timis jot na boo ko rek sa xel ci muhammad ndax yonent bi rek lay waxtaane ah keroog dafa naan ba ma invité ci TFM ah dafa naan boobu da naan fàttali ba mu yëkkatuloo ma fa Karbala loolu dama ko fàtte mu baax ak yéen ma baax bay bëgg dee kon nag maa ngi suñu borom dëgëral ko mu taxaw di ñu waxtaane ci Seydina Muhammad ñu ngi ñi fi teew ñëpp góor jigéen mag ndaw sama sang maa ngi nuyu baax ziar Ibra Diop alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh أدم الصلاة على النبي محمد لأنها مقبولة بلا توجد أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد يبشر قومه بأنك تأتي خائفا جوعا بنبوته وكل نبي يا loxo ca kaw imam bi nubuwati Demba Diop délégation jërëjëf kon sama ya. nijaay micro baa ngi mbooloo mi noo ngi leen di nuyu xam naa jëlee kàddu bi man ak ñu bari yooyu leemu yàlla wóoluwuma la ku ne sañ ko koo seqalul su la neexee nga ne ko wóoluwuma la jot sa xeex jot sa xuloo wóolu moom Seydina Mohamed commerçant Mariette Dia Thiané Sène mënuma leen a dim bay marché laaj ñëpp te kenn ku ci ne li nga bëgg nga bëgg ko nit nag bu ñu bokkee bëgg-bëgg kenn du nax yàlla na yàlla yëpp noo ngi lay ndokkee Adja Aïda Thiam ak délégation bu mu mën ne yéenee ma kon na ko keroog ba ngeen jógee këram billaahi lay telepon. téléphone sama waa kër yëmul ci wax fat kooku mu jàllale waaye daf ko ni jox ma ndey mi jox ma maani kenn ku jox ma jaaji kenn ku nekk mu war la ba ma ko ne xanaa moom daa dee ni moom rek leen tuddee sama Seydina Mohamed bëgg bëgg ma tax ndey cëbe mais nga wax léegi mu aani jarbaatu ma nubbe fa ni ma te ma bokk ak moom daal ndey saa trésor ande delegation bi nga wax mom moom sama jarbaat sama xel ndey birima ba ñuy def xadi ak caani kenn ku ci nekk ñu ñu def ñanga bi ne ndey birima caani ni xanaa da ngeen def waaye jërëjëf jërëjëf Thiam adiya sëñ naa moom du ma ko delloo mu wax loolu ndey birima monsieur le maire yebal ko mu ñëw maa ngi nuyu sama doom sama jarbaat sama xarit abasal ma doon la paas bi ci jumaa ji nit doo mooy ajar su xalifa yi topp na war na ne fa ma nekk de six heures ba ma fay jóge bañu na tardé bie tax na doylu ñu ci man day kebe saa day kebe trésor euh, papa na nga ma baal de waaye boo gisee li la yàlla defal di nga ma baal xam nga ñi fi nekk ma ko ñëpp ba mën a jur ñëpp du la yàlla teral ndax Seydina Mohamed a tax kenn du la sàllamu papa rek caan xam nga maa ngi déglu papa ma wax ni ndey sala la amoon naa dana ñëw di ajaagi maan borom docteur ndey bi sama jarbaat waaw ah lii lépp ko paa maa ngi jégalu ne yaay bàttoon daañu fi ñu nen borom saabu yi mooy sama goro ma ni sëriñ Basiru Faal sopp Seydina Mohamed ajaa ma jeexu caam parce que c'est Saliou Caam war naa ne ak escale gépp Alaaji Basiru Fall nii papa aan nen papa Kébémer gi lay dalal tey ñu cedd bi mën ngaa bañ a ñëw deux cent cinquante kilomètres amin ta mu ma laaj ji keroog guddi gàmmu def doon màggal Seydina moon nag altine la woon talaata mu ne damay sant yàlla bi ma boolee Seydina moon nag tey mu yónnee fii ñaari bis yooyu mu jógee moo tax waaye ku ko xam ak yéeneem xam ne ak ko defoon ëpp na ñeent fukki junni ci Seydina moon nag Maxtaar ñu ngi lay dalal kii la fi yebal rusu ñëw ki nga àndal di Oustaz Mor Seck rusu ñëw njaboot Seydina Muhammad di Cherif Ba Aïdara moom Cheikh Mouhamadou Fadel Aïdara li leer ndaw ma ngi ciw yoon njabootu maam Cheikh mo Fall di ci nan ñu ngi ciw yoon a jénga neñu ma ñew nañu ba def kon nag waa Kébémer bëgg ngeen lool jaaja mbay seen xal waye ki nu bëgg dégg kàddoom moy papa mom mi ma ni ko baax ci doon ñii fi nekk ñëpp man magóom ci am fi mel ni man baa ñoo xam ne magoo leen waaye kenn du la sala bu ñëpp la ñuy wax papaan rek la ñuy wax yonent bee la dal xam nga salaat dañoo ne ba six heures ñu morso bu weex raxas ba mu set ñu toj ko ci morso bi ngelaw li di guub muy jaay ñu jël pompiteer jël soble jël ya may àndal yëpp rëbb ci taal muy baax di wax muy sama ndey di yoox naa muy sama ndey ba baax a baax ba ñu jël salaat teg boo génnee foo ne looloon lekk mu ne salaat xoolal nee lañu def ak ñu salaat def waaw bëgg gën a sori ndigal baa ngi ca na mën naa

ci turu alhaji basiru fall njaafa sopp sayyidina muhammad alayhi Salam. yonent bi wax warasatul anbiya ñoo ngi lay jox sa wàccuwaay bi Basiru nekkoon noonu di nuyu sëriñ Mbay sunu wayjur di ci teg alaaji Pape Seck Galañ sama goro la ndax sama soxna ak soxnaam ñoo toppante di nuyu bu baax soxna Xadim Ba yaa cheikh wee sëriñ bi mi ngi jotal ci yéen nuyoo ak siyaar sëriñ Basiru Fall dafa wax ne alaaji Jaale sëriñ Basiru dafa wax ne bis bi moom moom moom moom Mbàkke bismillah Ousmane Cissé Ousmane Cissé directeur des mines kon mi ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan jataay bi yàlla na ngeen ko woote ay yu bari mu wax nag kat yi am solo ne mi ngi seere ci Serigne Mor Seck mii ne yéen mbooloo mi Serigne Mor Seck ci biir mbooloo mi la bokk tey jii moom dafa am gàllankoor ndax kilifa réew mi moo ko wóor. mu dem ca mooy gàllankooru ak ñëw waaye mu wax ne na ngeen xam ne Serigne Mor mii xaritam te wax bis bii Serigne Mor sol na ci loolu ndax ku ne xam ne ci gàmmu la jógee waaye ginnaaw yàlla bu fi yónnee jëmmi Serigne Mor mii moo tax ak seen jëm yi nga xam ne yan bi moo jeex yéen la ngeen takk kon mu ngi leen di seereen ne. lépp lu waroon seen digganteeg moom Serigne Mor mii dox na ko ba mu mat sëkk jëf na ko wax na ko topp na ma ci man mii ci bis yi miraayam ngir bëgg Serigne bi ñëw wala su munta ñëw mu yónnee kon nag nee na Serigne Mor mii dox seen digganteeg moom la ko war moom wàcc na nee na naa leen ko seereen yéen mbooloo mi yëpp yëpp di ñaan seen diggante jàpp li ci nag mooy. jox na ma ñeent fukki junni nee moo ko barkeeloo ci bis bi su fekkoon ne jógewul ci gàmmu beneen di wax ne bis bii bu leen ci def dara lépp moom moo koy defal boppam loolu nag comme Serigne Mor la ma la ma waxoon soxna Xadi Serigne Mor ñeent fukki junni yaa nii nee ñu ngi ñaan ci barke yonent bi mu doon bu toll ndax nee na yeneen ci bi saa waxtaan ñi xam na li may wax Serigne Touba dafa wax ne bidaayatul maaxi nihaayatul xiyaar ñu ne gaa yu baax yi fu ñu yem fa la fa la yent bi tàmbalee moo tax mu ne fa laa taqi suñu ndax dalay ñu fa dara kon yeneen tamit bu dee ko nii naa ne ci gaa yu baax kon nag ñu ngi leen di jox seen wàccuwaay di siyaar bu baax monsieur le maire Adama moom moo ñëwee sëñ Bas yi moom sëñ Adama nii moo ñëwee sëñ Bas tey nag man ndax laa dëkk. mu nekk sama neex kon su ma ñëwee ne sëñ Basiru moom mu wëlbati ku ñëw toog nii am naa ci mbégte ñoom lay jox sa wàccuwaay tey li ngay sàkku di ko ñaan ak fi kilifa ji teg yàlla na ko am miraaram ci barke leen bi sa papa am naa lay ndax ñun ay jànkatu xasida la sama rakk sa wëllëre la sa xarit la muy alaaji Seex Jóob kon noo ngi ñaan ci barke yonent bi yàlla na yàlla fan aajo yëpp ci barke yonent bi jërëjëf dafa daan sëñ Diouf Baye bi nekkoon yëpp yëpp yëpp may nañ ma yëkkati moom yëkkati tuuti la tànk soo jëmee sini abdalay dirbu daay ndax dawaa di ba yëpp yaa sini mbaaru def leen ni nu màggal kookee dil Mustafa xayru xalqillaay xayru xalqillaay lahi mansilatun lahu jiyana wa agundul galalahu rahman wa anayna fadlin musri'ina lahu wal fadlu inna rasulillahi kharrahu kita yadai la sa'yun tula shimwa basmun wa bahshur liman lalu wa man jaru basmun wa basmun liman ma'ala rasulillahi basmun وباس لمن كان ومن يرى باس لمن بعد رسول الله مسجد وباس لمن كان ومن يرى وباس لمن كان وباس لمن كان ومن يرى وباس لمن كان yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaari loxoom yi baslun wa basu loolu ma ci sol damay bàyyi sëñ Pape Ndaa yegg na ko jërëjëf maa ngi sax maa yaa ngi dégg yéen xam ngeen xam naa ko. gan ko amee. danga koy jox bu mën gaa du noonu te tool bi suñu tool xoolal ni mu béy jawe waaye ci ginnaaw nga rek lu ñuy dund di bu baax ñu ngi lay dal di leen ñaanal yàlla yéen ñi jël relève yal na leen yàlla suturaal yal na leen yàlla musal ci làmmiñ waaye ci bët waaye ci dara jël yonent bi dégg nga jigéen ñi léegi ñuy wax ni fajar bu nekk yaa leen di yee waaye réew mi ñi bëgg leen bu ne ñu ngi leen seen sa émission bi siira yàlla na yàgg te sax te barkeel yàlla na ngeen yàlla xëy ci làmmiñ waaye ak bëri waaye yàlla ñu nga bokk génération ci dara jël yonent bi sallallahu alayhi wa dama lay tëral tuuti ci ay fàq rek ah. Mother Maria, chi vuole andare a mancare, dimmi الورى المقبول يرمي عني بوب من خليف بوسائل كبير أزم خبري من فلاتي كي موريان مكان جندي سيدنا محمد يوسف جل الجم يا يا بارك الله يا منال بجاي في وجود على المشهور يا منال الذي أمة أهل الكفل من ¿Qué le bi weer wi teroo am na loo yëg waaye bu nekkoon ci àddina keroo fukki fan ak ñaar ci rab yu ëllëwal tombeeg 20 avril 570 guddi gi dem fajar gi ñëw ci diggante bi Seydina Muhammad gane àddina keroog la jamono jàng keroog la jamono puukariw kérok la jamono ko kérok la xërëm yëk ya toj kérok la pare sira toj kérok la ndoxum saawata ma ngiss kérok la safaras faris ba fay kérok la dëgg tambalé feñ ci wax dëggay feñ ci maana dëggay feñ kérok tuddu rasulullah ci wér wii la woon ñu ngi leen di nuyu di leen di leen ziar ñuy baax a baax kilifa yi ronu jotaay bi yépp ñaanal leen yal na yàlla yokku leen dëgëral nuyu président directeur général di sidna Ousmane Siis mu baax mi di ko nuyu di ko ziara di ko ndokkeel bu baax a baax a baax di nuyu monsieur le maire mu leen nuyu baax a baax Fall di nuyu waa Ndande yépp ñaan dëkk bii di Kébémer yal na fi yàlla gën a def barke bu ñu nuyoo su bàyyi xaaji jaar ji mu yóbbaale géew kilifa yi romb jotaay bi yépp di am mbégte lool ci kàddoom yu sell yii mu yëkkati léegi ak sunu waajur yi doon tagg Seydina Muhammad léegi ñaanal leen yal na yàlla yokk leen dëgëral nuyu nag soppay Seydina Muhammad yi nuyu yaayu Seydina Muhammad yi bu ñu nuyoo ajaratu Xadi Mbaay mu yóbbaale géew sunu wéy man ismuhu muhammadun aw ahmad mu ni walaa yuxaasabu déeful rakle aljalilu samam yàlla mu mag mi ñépp jublu من اسمه محمد أو أحمد وحمد ترم محمد لا ولا مي أحمد إلا كندو لرجع وأخنا كي يكون بابا مجيء كندو قرني باي أكيا مجيء تك كتير رسول الله ها كوبي كندو قرني إز نودي تبي رفعي مثل مفرد العالم صلى الله عليه وسلم تا تا تا شروع كندو moom Busayri daf ni ko isnu diita ba wooweef la yow rasulullah bi rafaci ci rafa misla mufradul alam kenn mufradul alam boo bindee muhammad maska dafa am boo xam ne maska lonk la am maska boo xam ne yet la am maska boo xam ni maska néeg la waaye booy wax mu moom masque lonku la léegi lonk ba ca kaw la ca kaw moo ko leewu moom rasulullahi waaye li ci suuf moo ko leewu sayyidina Muhammad isnu diita ba wooweef la yow rasulullahi bi rafi ci rafu ci rafa misla mufradul alam kew mufradul alam moom rasulullahi sunu mbëggeel ci moom yal na ko yàlla gën a dolli di leen bu baax di leen ziyaara ci bis bi ci weer wii nuyu mboolem ñi tagg yonent bi alayhi salaatu wasalaam te nekk ci jotaay bi ñu ngi leen di nuyu ñuy papa Abdul Aziz Baye mi nu àndal ak xaalaaji dem xaaji dem ba mi nu àndal ñaanal leen ñoom itam yal na yàlla yokk leen dëgëral nuyu ajaratu euh, caane seen mu ngi koy nuyu di ko dokkeel bu baax a baax a baax ndax goroom day sunu jigéen di sunu lépp di ajal na yaasin ñaanal ko yal na yàlla yokk ko dëgëral yàlla barkeel sëyam ci daraje rasulullah moom daal euh, ajaratu da yaasin nag moom moom dafa ñu sopp rek ngir rasulullah waaw dafa ajal da yaasin dafa ñu bëgg rek ngir sayyidina Muhammad moom mi demoon ziyaara ji yonent bi ñaanal goroom ajaa caane seen yal na yàlla yokk ko dëgëral yàlla barkeel sëyam boole ko ak borom këram ci daraje sidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ajaa xadi am nañu mbégte maa ngi nuyu su ma la nuyoo rek su ma sañoon nag soppay sidina muhammad yi fenni kenn ku ci nekk mu tudd turam ziar la ndokkeel la jox la sa wàccuwaay waaye mbokk yi tey lii nag سيدهم وهي السيدة بنت مضاء ابن حارس الأكبري فاستعرب منهم ولذلك فقريش هم العرب المستعربة kon diir jurugu nga xam ni yun cal ismaila mi nga xam ni maam la ci rasulullah gi ismaila nekkul arab waa jurgum ñu jël seen doom te mooy sayyida bint minba mi nga xam ni mi ngi bokk ci kiir jur eh, ko xaaris mu mag ma di baayam di baayu sayyida bint minba jël doomam may ko yuntal Ismaila sayyida bint minba mooma de bokk ci arabul ariba di jurante di jur ñuy jur ñuy jur ba giir Qurayshin ñëw kon giir Qurayshin buñ la laajee ñoom ci wàllu arab ban xeet la ci wàllu arab da nga naan Quraysh gi Seydina Muhammad bokk ñoom ñooy arabul mustaariba ñoom bokkuñu ci arabul ariba waaye arabul ariba mi nga xam ni ñooy arab pire ki gën a dégg arab mooy rasulullah yonent bi nag yàlla sàmm ko sàmm leer ak la njëkk mooy ñëw leeram nga musul jaar ci ndigg lu musa mooy yàlla leer nga musul jaar ci ndigg lu musa mooy yàlla leeru rasulullah gi musul jaar ci man bu ñàkk personnalité leer gi ndigg lu mu jaar yaa yilif jamono yaa yilif jamono amoon na maam booy lim ay maamam fukkee lu maamu rasulullah gi ak juróom-ñaar mooy Ilias Ilias dafay wër Kaaba ga kon tawaaf kaaba nga xam nga yàgg na ndax yu ne la Ibrahima la ko yàlla maamam bu ñuy wax Ilias nga xam ni muy fukkilu maamam ak juróom-ñaar Ilias a doon wër kaaba nga nan labbayka allahumma labbayka labbayka la sharika laka labbayka inna alhamda wa ni'mata laka wal mulka la sharika laka ñu digg leeru rasulullah yi ci ndiggal Ilias di labbaykoo moom سما سيد الحاج مالك وفي سلب لإلياس يلبي ويسمعه الموازين بالأسئلة كم يقول كبي عليه الصلاة والسلام كم تان يمكن نقول في أي مام لجك من يوم رسول الله جل مكة جل جل جل جل جل kon leeral nga moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam la jëkk muy ñëw yàgg naa def kéemtaan moom sallallahu alayhi wa sallam di ko yàlla di ko jaarale ci ay maam yu baax mbokk yi bi leer nga nekkee ci maamam bu ñuy wax Abdullahi mu jur ko moom dafa tëdd gént moom Abdul Mutalib gént gi nag la njëkk Seydina Muhammad di ñëw nga jërëjëf loolu jërëjëf Abdul Mutalib laa gént gis benn garab bu mag benn car baa nga pen benn car baa nga sow benn car baa nga ca kanam benn nga ca ginnaaw abdul mutalib su dëkk ma garab ga du mën a àgg ci garab ga waaye gis nañu yor ay jaas yi pour garab pour gor garab googu waaye abdul mutalib gis na ñoo xam ni ña nga kàllaam mbiitu ca garab ga di yéeg ca garab ga am na ñoo xam ne ña nga jàppandu am na ñoo xam ne ña nga yéeg ca kaw garab ga abdul mutalib daal di yeewu daal di tiit ci li mu gént mu dem laaj ko kay firi gént mbokk yi bàyyi bu saxo yalla yalla yàlla yokk leeram jërëjëf nee bari na ko affaire am dox gëm gént tax bari na ko ay affaire am yàqu ya. xeeb gént tax ñu ni nit bu tëddee saraw xam moy dem am yu mu lay signaler. wala saa yoo géntee rek soo xëyee gaawal saraxe wala nga dem laccé ki mën fi firi mu firul lu do. Abdul Mutalib bi mu ko laajee ki fi gir ni ko man day dama gir gis garab ko ma ben ka ca pen benn carba ben ka ca soow waaye suma dëkk ma le garab ko duma ci àgg gis na nak ñuy bi tu ca garab ga bu ca gis na ñu yéeg ca kaw garab ga bi firi gént ni ko li nga wax day bu fekke deug la contane آمنا من عظيما خائما فزعا وحيلا إن شدخت رؤياك فابتسمي نقول لك أنت أنت مفكي دقل مونيل عبد المطلب نقول موي موني موني كل يخرجن إلهي منك من تبع له الخلائق من جن ومن نسب موني كل يخرجن دنا جني إلهي سما بروم kii firi ko koy wax de ne ko man koo xam ni tabiat dana ko topp loxoo ñeel jëmm jooju alxalaayiqu mbindeef yëpp daañu ko topp min jinnin wa min nasami li nga gént ci seen digg lii lay bàyyeekoo te bu génnee nit ñi daañu ko topp jinne yi daañu ko topp koo muhammadu rasulullah abdul mutalib ne ko takkit ko waxul kenn dara Abdoulaye gën na àddina Abdoulaye am fukki at ak juróom-ñett baayam wutali ko soxna te muy Amina mi ko jur moom Rasulullah Amina moomu wax bu moo ko jur wax Abdou Manaf moo ko jur Abdou Manaf Zuhrata moo ko jur Amina Bartu bint Awf mooy yaayam kooku Abdou Dar moo ko jur Abdou Dar Xusay moo ko jur. Barra moom Umu Habib moo ko jur Asad jur ko Abdul Uzay jur ko Qusay jur ko Umu Habib moom Bartu bint Awf moo ko jur Abid jur ko Abis jur ko Adiyun jur ko Kaab jur ko mooy kon Amina mi jur Rasulullah yi mbokk ak Abdullahi mi ko jur la Abdullahi Abdul Mutalib ko jur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 Lanjut njëkk muy gën yaatin na ya yàlla signalé na ko signalé na ko moom rasulullah abdullahi nag kan xam nga góor war naa teel a takk soxna xam nga fukki at ak juróom-ñett sa baay may la soxna kon war soxna war soxna waaye li garaaw ci mbir yi ci programme mooy Amina biñ ko may Abdullahi benn weer rek la dundal moom Abdullahi bi muy dee njool makkaan gi am ñaari weer ci biir yaay mën nga wax ni biñ ko ko mayee moom Abdullahi biñ ko ko mayee Amina benn weer. la dund ak Abdullahi Abdullahi ni ko dama bëgg dem Cham mu ne ko damay defi commerce dama bëgg su ma ñëwee ma bëla la sa néeg bi ah, amee ne ko mais ndijaay man xëy jàkkaarloo sa kanam gii moo ma dàqal ma Abdoulaye ni ko dama bëgg su ma ñëwee jëndal ma or jëndal ma choix yàlla ko xol sa bëñ ñu rafet yi moma ma or moma ma dàqal Abdoulaye ne ko nak baye ma dem ndax jigeen dañ koy Abdoulaye dem sha jaay na ba jaral amna bonu fils di ñibbi ci makkatal mu karam feebaru bir buy metti daaneel papa rasulullah Muni na jaar fi ci medine faju ba sama bir wir ma continuer ndax ma àggale voyage bi caravane bi jitu ko makka wax abdul mutalib niko ko abdullahi ma nga medine boobu ma nga tuddu yasriba ma nga yasriba ndax dafa febar abdul mutalib wo taw ba haris ni ko demal li ma abdullah abdullah tamena ndax boy de da ngay wer ah abdullah tamé tàgg waa medine ma ngay bi muy genn medine ci place ñu wax xaaris déparé Makka génn Makka dajewuñu ñoom ñaar Abdullahi génn àddina boobu Seydina Muhammad a ngi am ñaari weer ci biiru yaayam bi ab waa ah Abdullahi xëy na mada chehrani lil xamli haza ashhurun kalima mbokk yi papa yi Seydina na nga ci biiru yaayam weeru wa mam adama ñew ndokkel amina wéru ñaarel ba yun ci yalla sisse ñew ñako amina ma ngi lay nuyu mana sama mam sis ma ngi lay wax ni ki nekk ci sa bir bi bu nekkul nak mom dara do am wéru ñettel ba yun ci yalla dirisa ñew wéru ñettel ba yun ci yalla noox mo ñew wéru juroomel ba yun ci yalla hut mo ñew wéru jurom bennel ba yun ci yalla ibrahim mo ñew weeru juróom-ñaareel ba yun ci yàlla moo ñëw weeru juróom-ñetteel ba yun ci yàlla Muuse moo ñëw weeru juróom-ñeenteel ba yun ci yàlla Iisa moo ñëw weer wu ne am na yurumtu bu ñëw ndokkeel yaayu Seydina Muhammad ne ko maa lay digal ni bu nekkuloon ak kii nga ëmb dara yàlla ko bi ah ok Amina wax ak moom min baadi ma xat xalaa waawu yuqalu laha góor gi ha anti humilti batran sayyidul umami ya amin ma ngi lay wax na nga noppi ne ko yëgal ni yaam bi mbur ki nga xamne moy sangu aduna ak alakhirah di sangu minde yëpp mom rasulullah bokki yi bëgg ñew bi mu nekk ci biiru yaayam gaynde dàq na bëy ba jàpp ko fóon ko war ko ginnaaw keroog bukki dàq na kéwél ba jàpp ko fóon ko war ko ginnaaw bëy na gaynde lu xew mun ko doxal at mi atum mbégte la at mi atum tooñ mbooleem njaay àll yi kenn ku ci ne yaa ngay daje ca digg pénc ma ña tëb mel ni luy fecc ngir yëg ni waajaa ngi ci biiru yaayam mbokk yi li jigéen di ci matu yaay Seydina Muhammad yëg ko Amina nee na ëmb naa sama doom ji juróom-ñeenti weer bis bu ne gis naa kéemtaan yaay Seydina Muhammad nee na waxtu wu ne gis naa kéemtaan bi mu nekk ci sama biir bii waaye li ma gën a ci sama doom ji mooy keroog bisu juddoo boobu spectacle boobu bur musul am ci àddina وروى خطيب البغدادي أن آمنة قال لما ودعته عليه الصلاة والسلام رأيت سحابة عزيمة لها نور أسمع فيها سهيل الخيل وخفخان الأجنحية وكلام الرجال حتى خسيره وغيب عني فسمعت مناديا ينادي توفوا بمحمد صلى الله عليه وسلم بجميع الأرض وأعرضه على كل روحانيين من الجن والإنس والطيور والوحوش وأعطه خلق آدم ومعرفة الشيخ وشجاعة النوح وقلة إبراهيم وفصاحة صالح وحكمة اللوط وبصرى يعقوب وسنة موسى وسمر أيوب وتعب يوسف وجهد يشوع وصون داوود وبخار إلياس وحسبة يحيى والزهد عيسى عليه الصلاة والسلام bi mu juddoo nee na niire ma tiim ci jibril ne na ci biir niir wa mbokk yi xam nga nga tëdd sa biir néeg ah am benn niir bu dugg ci sa biir néeg tiim la di nga jaaxle amina nee na maa ngi tëdd waa ji war a judd ne na ci biir niir wa am na ay fas yu cay ni xam nee na ca biir niir wa am na kàddu guy wax ak man nee na kàddu ga lam ma wax daf ni ma mboole mboolem yorantu yi ku ci ne la la yàlla joxoon nangu na ko jox na ko sama doom ji muhammadu rasulullah asalaamaaleykum wa ahadu xalqa adama aleykum salaam ah, sëñ Babacar sa kii sama soppeel sëñ Babacar mooy borom mooy borom parfum bu neex ba. mooy borom parfum bu fi fekk ma ba TFM. yëkkati parfum bu neex ne ma addi ya rasulillah. ndeysaan jërëjëf moom. mbindu maam aadama ma jox nañ ko rasulillah. topp yunusa yur yàlla yunusa la ñu sànni ca géej jën wan nu ko woowa jën weram jën wan nu ko woowa jën weram jën wan nu ko yur yàlla yunusa nekk ci ñetti lëndëm naan laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min azalimina topp yàlla ak yur yàlla yunusa nangu nañ ko jox rasulullah wa qulata ibrahima خارتو إيا الله خارتو كيرت على إبراهيم يا الله نعونكو جه رسوله وجهه يشاع وشوم داود وخوخار إلياس من إلياس وحب دانيال جفير دانيال يعني جه نكو رسول الله وشجاعة نوح جمبار نوح وشدة موسى ترك جمبار كيرت على موسى يا الله جلدكو جه رسوله آمين النينا Seydina Muhammad gane àddina bi mu juddoo xam nga nu mu def daa sukk ñaari bëtu oomam ya tàllal benn baaraam ba banque ñeenti baaraam ya jublu penk moom liir bi waa jigéen ñi liir mel ni fu mu gis bii liir dafa judd sukk ñaari bëtu oomam benn baaraam ba banque ñeenti baaraam ya ne waxii la sabaha am ñu ni dafa judd ca saas ya moom rasulullah الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعسيلا حاج مالك يومي شبابك مقباض أسابعه مثل المصبيح يرنوع الوزائم ما شاء الله ما شاء الله رسالة سلام سيخ الخدم يعني لدي دور النعمة بيدك من رسول الله مغير يخ ثبت أن ربنا لم يريد mislan lahu fa misluhu laa yuriidi ba sëriñ baa ko wax saadul abihi ba Mouhamad Fadal Cheikh na Cheikh Sarko mi ko yàlla xam nga lu xewoon doo toon naxmati indi ko ni som sama am rasulullah xool yàlla bu nekkul woon ak moom mbindeef du am law laa bu maa kaana al-wujuudu fi al-wujuudi wa lam yakun lanaa al-qa'u sujudi mbokk yi keroog bi mu gënee àddina ci weer bii ci weer wi dañu samp ñetti drapeau ñetti drapeau la ñu samp benn penk benn soow benn ci digg kaaba ga raat salaatata alamin xadim fi kaabatin mashriqi wal maghribi tasila tazalzalat ustuwaratul muluki ka kaabati dama la wax legi ni la yaa maa njëkk a màggal guddi juddug rasulullah ndax màkk nañu gis kaaba ga gis ngeen dem ngeen fa ñi fa gul yalla ñu dem ñi dem ba nopp yalla ñu dem na kaaba ga dama toll gis ngeen keroog du jom màkk juddo kaaba gi day def li jaay lan rek rek rek rek rëg yi yëpp ñetti fan dal ka kaabati salaasata ayyamin fa lam bu juddu dañuy jël lu melni bagan leket këpp la ko bo nekké li rek dañuy jël bagan ta ñew kepp lu kippër ñi këppaat la kippër ñi këppaat la kippër ñi ne la ne lire bi aaruna na sayyidina muhammad judd ñu jël bagan ga kepp ko ko bagan nga xar ta bagan nga musul xar yak ay dunya ñoon naka judd ñu kepp ko bagan ga bagan nga xar yalla len di wan ni caaxaan jeex na kii li koy ardu lii wa fil wilaayati minhu jafnatun falah wal infilaaxu ujaabun inda khawfi kero tuddu ko bi mu gën a na nga xol ci taw ñu ni xol bu jujju la pour kilifa yi xamni seen kilifa ñëw na pour kilifa yi xamni seen kilifa ñëw na dafa am benn lappe lappe xanaa ki mer du jullit ah ma ne xanaa ki mer du jullit de ah jéey nekk kilifa ca église ba dafa ne wax sa mbaaxuwaay du wàññi ci sa mbaax dara moom mu ni man nag dëgg laay wax bu yeboo na ma ñëpp mere mais àdduna bi dafa tëju woon univers bi tëju suuf si tëju ki ubbi àdduna bi mooy Muhammadu Rasulullah dañ ko yaa fatiha ardi yow mi nga xam ni yaa ubbi univers bi suuf si yaa ko ubbi mu ni xam ngeen lu xew yëg naa mbëggeel ak cofeel gi ma am ci moom xaw ma lu xaw ma lu mu doon jullit ni yéen laay waxal ne ñu ne ah mu ne su ngeen tuddatee ba kontaan wax leen ko ni ko waykatu xarawi ba labbe ba ma nga lay nuyu yaa rasulallah wa in zakartum rasulallahi takrimatan mu ni fa balliruhu salaama shaa'ir xarawi ñu di ko sopp rek ñu di ko sopp rek waaw wax leen loolu ma ñu di ko sopp rek ñu di ko sopp rek ñu di ko sopp rek ñu koy sopp rek sallallahu alayhi wa sallam bëgg eh, rasulullah maanu xiyaamu tiw ba woo yoneen Muhammad day lanu yaakaar bu ëllëgee mu jariñoo axiru sliman bil hashim yusuf ndax am na ci yonentu yi man koo xam ni yushabahu def na ko nduróo ne bil hashim yu ci ko jóg hashim ka di rasulullah afirus liman bi laa sabawa yonti yàlla Muhammadu keroog bi mu gënee àddina moom rasulillah gi keroog palek isra tëj na afirus sabawa njol maka yaa leen gën keroog la saawatay jaamu ndox junni at afirus liman bi laa sabawa Mamadou Lamine Haji Usman Cissé keroog la Faris di junni at afiru si man bi laa sami sàbba woo njool makka yaa gën waaye keroog bi njool makka tamit àddina ñi doon jaamu ndox seen ndox ma niis na afiru si man bi laa sami sàbba woo njool makka yaa sa fay na ngir dikku rasulillah gi afiru si man bi laa sami sàbba woo njool makka yaa leen gën keroog bi mu ñëwee moom liir boobu asru si man bilaa samay sabbawoo njol ma ka yaa gën. Abdul Mutalib daa ñëw xam nga lu mu dañu ne Amina ana liir bi ana liir bi Amina geesu xool Safa Safa ana liir bi moom gisuma ko de Amina xool lal bi liir bi fii la tëddul léegi. abdul Mutalib ne ko baye ma de nga bëgg sakal sàkkal bi pexe ami ana liir bi am mu ne ko moom fii la tëddoon léegi gisuma ko yeen iya ñii ana liir bi ñu ne gisunu ko ñu ne ciot bi ku jël liir bi gisunu ko de abdul Mutalib ne ko ami am lu teye loxo ba ne ko teeyam liir ba nga àjjana orul ay ne yang koy ayo bebe bala ñu jam bala nga cey jot bañ ca paré eh. orul ay ni bu ne yang koy tipp nan moy nek sama borom kër ñang koy ayo nenne lire ba nga aljanna lire bay bay fatima um kursum roqi zainab bay abdullah ibrahim qasim so bay sayyid alhaji mari yakar borom bu ba mami cheikh nasir saab muhammad rasulullah la tawu izat hajaz kullu wara lire ba nga الله لك مخزات أعجبت كل الورى يلا لي واختارك سيدنا محمد إيه لك معجزات أعجبت كل الورى يلا من أكون عن يلبك يلبك كل يوم لك معجزات أعجبت كل الورى ما لا ينجي بكلات يا رسول الله سيدنا محمد مصطفى أعجبت كل الورى يا رسول الله لا تقع إذا أعجب كل رواية يا الله نير سيدنا محمد ما له كل بكني مع الجمع الجماعة إيه لا تقع إذا أعجب كل رواية أفمن كان مؤمنا جني كمن كان فاسقا yàlla ngay waxtaan ak Seydina Muhammad yàlla nee na ko ëllëg naa la jox bëri day ëllëg yowmal xiyaam naa la jox ba nga kontaan yow la sëriñ keroog la ñoom makk ni yàlla bala maa kontaan sama xel lépp dugg am المعجزات عدد كل الرايات يلا خول سيدنا محمد ne ko naa la siwal yow رسول الله اي مصالك معجزات عدد كل الرايات yàlla ne ko sa tur bi danaa ko yëkkati mu wër sa tour dinaa ko yëkkati ba ñëpp xam la yow rasulillah yi sa ko bàyyi ko lu bi tudde ko ni abdana kullawa ورفعنا لك ذكرك yàlla ni ko di nga seen mbooloo ak mbooloo fàq ko wutal si la ورأيت الناس ليلة قومزات أعجزت كل الورى يدخلون في دين الله أفواجا وصف سيدنا محمد فلي أعجزت كل الورى يلا نينكم بولو أكم بولو دانيو فاقكو ودن سيدة يا رسول الله المصرى لكم معجزات أعجزت كل الورى كيف بيقولوا لي عدنا لكم معجزات أعجزت كل li gën a doy waar mooy pour wax lañu la waa ji bokk la nit ñi li ngay màgg ak rasulullah yi weer la koy màgg li ngay màgg weer Seydina Muhammad bis la koy màgg dama lay wax pour nga xam ne bokk la nit ñi xam nga ñaata la la am raam ñaari weer deux la am tàmbali raam ñetti weer yow màkk na ñëpp kenn weer muy jàpp lu miir ya juróomi weer muy dox juróom benn weer muy génn kër gi dox juróom ñaari weer dox ba dëgër moom rasulullah xam nga kañ la tàmbalee wax juróom ñetti weer huit mois waaw lii bu fi am huit mois wax di nga jàmm ne bi mu amee juróom ñeenti weer wax ja set wicc waa kii tax bokk nag nit ñi ah ñun suñu doomee ñetti at la ñuy tàmbalee biir jàng wax waaye ñoom màkk bi muy am neuf mois xaaji Malik ni na bi shahri ni ci ñaari weer fii jii mil xiyaama ñetti weer ci la ñol màkk taxaw wa fii daalin bi mu amee ñeenti weer xadaa mujj na moom si kal judduraani di jàpp nu miir ya góor gi ni wa xudratul mashi na dox ga fii in ci juróomi weer la wa asraa dox ga gaaw na fii waawin ci juróom benn weer wa fii zaayin bi muy am juróom-ñaari weer yasaa lay doxee moom rasulullahi saaya mu'tazimi comme doxinu aji farlu xaaju Malik ni fii xaw juróom-ñetti weer la waxee fii taa in fasaxatuhu juróom-ñetti weer wax ja set fii yaa ay yaram yi fukki weer nag bu sànnee loo ñëw ñëw bët bu sànnee bi muy am 10 mois la mu sànni loo gis fu muy dale min xam ne amee ni la njëkk muy am ñaari at ñaari at avant muy am ñaari at kaama la nekkee jafran di mu ponkal waaye bi mu mënee ñëpp kaama yàlla nekkee sa addabin di borom ak teggin sama am na yàlla xaw wi ni lillaahi parce que ma yéemati yàlla darul aji bi mbaaxu aji yaru yoo xam ne shabba màgg na fii yuttumi ci jirim moom muhammadu rasulullahi bàyyi ba siroon baara maame dina Cheikh Mbacke góor ga demoon ko moo jaari maa jaari wir wiri sa bu ñu may Tuuba sa bu ñu may jaari muhammad bun habibullahi al bakiyu al maaruf cheikh Syekhul Khadim ni soo beugé gis nit ko ma ma bi Sëriñ Mouhamadou Moutakha Mbacké insaanal kaamil sëriñ mam ma nee na nit ko ma seuk boo ko bëggee gis da nga ñew ci sama waaji rasulullah xalxal wa xulxal dara bàyyi sëriñ Saliw ne wo wo mom rasulullah ak lu wara sëriñ mam ma xam-xam ci min sooy liggéey dajeeg moom di nga tardé dag laaj lu tax boo ne ko jàpp loxo sëgg si gi xool ko sëggaat si gi xool ko njool màkk jox la beneen couleur boo ne ko mën nañu jox la nopp soo bàyyi du sikki boo séenee mbooloo mooy ñëw mu ngay séen ca kaw boo ànd ak moom ni si tax njool ànd ak njool màkk mu sut la mbagg mu amul droit sut mbagg yi rasulullah boo ne ko jàkk dootoo xool kenn bu la wanee ginnaaw taxawaay ba ndombay baa di sànnee ko ci ginnaaw bopp bu rëy ñañ la sànnee ko karaw bu ñuul kooku doonoo xool kenn dënn ba yaatu xase bi tàllee ko moom rasulullah ji kanam nga roowul ndoo ko ñu laaj ko Seydou Aliou wa Sufi attaqi xaali liwaayi fi tariqa tijaniyati bàyyi Sëriñ Babacar Sy bàyyi Alaaji Mansour bàyyi Cheikh El Hadj Mouhamadul Habib Seydi El Hadji Malick زاهدين كمعالمين ورعين سالكين واصلين لولا كما كان كم تنشر علم كم تقي الضيوف وكم ترضي إلاحة وكم أسقط شيطانا ما مور كم عشت كم سرت كم بشرت كم ولا كم كم كم وكم ثم كم أسقط حيانا مولودا تماما وعلما مسليا لفقير هاديا لجهول يا ابن عثمان سيد الحاج مالك ليه خلنا خركنا قرمونا خلاص xar kanam ka dañ si mu ni xaliilu tadwiir wajhi mu ni Seydina Muhammad aji ji wëndeelu kanam lay sekkal samatu déem gën lu góose wa tuulu ak gudd fil wajhi di nekk ci kanam Wah soppe Seydina Muhammad ñu lay gërëm ñoom ñëpp nag ñu lay gërëm ñaanal la yàlla yàlla yokk la dëgëral ci daraje rasulullah waa ama femme antal ko dëgg la dëgg la ndaw allah yàlla yàlla mottali léegi sina Ousmane Sène Ousmane Cissé wax na bu ñu leen dana leen tabaxal daara ji ba mu wàgg yal na yàlla fay la. dama leen dama leen di jox teere. ñun da leen di jox teere ah ok ñun dina leen jox teere incha allah waaw loolu leer na kon am ngeen teere ah am ngeen teere sa tëg tëg tëg ah su waa ji mooy ko sakkan ki loo bëgg mu sakkan rek boole ci rasulullah moom du jeex du xeeb bi ah. du jeex du xew yi te soxlawul promotion moom rasulullah xaaral rasulullah maa ngi woon ci màggug rasulillah xalimatu saadiya indi jël si na ko waaw ma ni daal leen tuuti xaar xaar xaar ku bëgg yonent bi di nga déglu jël wax déglu kan ñi ñu bëgg yonent bi ñu ngi déglu de ca sunu mbëggeel ci moom yéen ko yàlla gën a di ko sopp rek kenn ku ci ne joxal sa morom loxo ne ko félicitation waaye félicitation waaye ngir boole gi nu yàlla boole ci xeetu rasulillah ah waaye félicitation waaye papa. naka la. Alaaji Pape Seck Galeen. ah. Alaaji Pape Seck Galeen. Alaaji Pape Seck. mu Seydina Muhammad est-ce que Alaaji Pape Seck Galeen. Euh, jéeg euh, sàmm sàmm sàmm amu sàmm lañ amu sàmm nga xam ne jarbaatam si jaan jéeg sama lépp sàmm waaye waaye félicitation waaye ah waaye gars yi mbokk yi félicitation waaye. waaye félicitation waaye na ku ne ndokkeel moroomam na ku ne wax sa moroom ndokkale waay waaye waaye ndokkale ci weer wi la woon ndokkale leen ci waxtu wi la woon ngir boole gi lu yàlla boole ci xeetu rasulillah laqad manna allahu ala almuminina iz baasa fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba walhikmata wa in kanu min qablu la fi dalalin mubinin صدقنا العظيم يلا غي وقت انا رسول الله يا يلا دعوا يلا دعوا مجينا من يلا جينا مو جي سام باغاي لام جي لام لا خط جي تاخير لا كم حرف تاخير ينقسم الى اربعه اقسام دا فهم تاخير ام تقريب ام تقليل ام تكثير xatu taqrib boo déggee xat xaama di salaatu xat boobu xatu taqrib bokkul ak xatu taqlil mooy xat yajuudul baqilu bokkul ak xatu taksir mooy xat yajuudul karimu bokkul ak xatu taqiq xatu yàlla gii xatu taqiq la la wallahi xat ci dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg man yàlla maa xéewal a jurit ñi is baasa fihim rasulan jamono jëma yónnee ndaw min anfusihim lu bokk ci yéen di nit te mooy muhammadu rasulullah maami Cheikh ma Cheikh Saad bu Mouhamad Fadal maami saadul abihi bun Mouhamad Fadal maami Talla Fadal maami Talla ن محمد tabarakallah saadullah bi ibu muhammad fadal ma min talibul khair bu njëri muxtaar cheikh sad bu dafa wax ni gin naa ni man saadul abihi ni asamaani juróom-ñaar suufi juróom-ñaar doo fi ni rasulullah bëgg yonent bi borom bi jaw bo rafet ba neen Euh, alxaaji Mouhamadul Mansour nee na bàyyi sëriñ Mbay Mansour nee na bëgg Seydina Mohamed barke la wa nee na bëgg Seydina Mohamed kóolute la sécurité la wa rahmatu nee na bu fekkee amoo yërmande nga bëgg ko bëgg rasulillah wa fekkee amoo leer nga bëgg leer góor gi ne bëggal Seydina watak su danuy wot man képp koo xam ne kaana nekk na aariya di aji rafle minal anwaari ci ay leer boo raflee leer nga bëgg leer alaaji Mansuur ne bëgg Seydina Muhammad yàlla ci boppam moo lay woddu ay malaay leer papa bu jërëjëf sunu mbëggeel ci moom yàlla ko yàlla gën dolli dafa benn téere bu ñuy wax risaalatu latif moom la sama Maodo wax ni ku amul ndijaay téere ba mën a nekk sa ndijaay mu ni jamono bii ñu ne li ko yàq mooy ki xamul te xamul ni xamul te xamul ko ni xamoo nee na kooku lu yàq moom wa annaka la tadri bi annaka la tadri mooy wuute ci xalaat mooy borom xam-xam yi wuute gii muy wuute waaye kenn ku ci ne sa preuve alquran la war a doon xewoon na ca saxaaba yi benn waaye bu fase woon soxnaam ne ko talaxtuki ilaa xiin fase naa la ba diiru jamono mag ñee wax nag ni jabar joo doyalagul bu ngeen di xuloo baatu fas bu ko wax ci wetam wala mu naan ah fase nga ma nga ko déedéet dama ni nañ ma wëggal fas wi moo tax naan la baatu fas sax boo ko tudd ci wetam waa ji ne jabar ji fase naa la ba diiru jamono talaxtuki ila xiin comme que ñom bo len bàyyi ci la gëna gën a defaru ndaw si dal di defaruwaat ah at yàlla jeexul di ko yaakaar ni bu la bàyyee nga torox di gëna la defaru rek ndaw si dal di wa dalal xelam idam mat muy doxal wala jigeen ni dee leen doxantu baax na bul dem fenn sax mais génnal demal ba boole estation ba wàññi quoi mën ngaa mën ngaa dajee kuy am kuy laajte waa ji ñëw jabar ji ñëw mi ngi ànd xaritam xarit bi ni ko dafa mel ni que soxna sa la de mu ne ko noo du moom bi mu ko jegee mu gis ndaw si gën a leer taar ba yokk jeexul ñu nuyoo ñu continuer mu ni waa ji mais man fase wu sax dama ni ko woon rek talaxtu ila xiin fase naa la ba diru jamono waji ne ko dang ko fasé mu ne xaar la ma dem ci sina Abubakar Sadiq laaj ko lu ci l'islam wax waa ji ñëw ñëw sina Abubakar sa tek mom ne ko sama soxna lay waxtanal mu kefin ma ma kefin ko ma ko talaxtu ki ila xiin fase la ba diru jamono ba xiin bëggaat naa ko Abubakar di la laaj lu ma ci l'islam wax sina abakar ne ko aram na la ba faaw mu ne ko yow sa xalat baaxul Nafi ibn Omar mu wax ko Seydina Omar Seydina Omar ni ko araam na la fii ak ñeent fukki at mu ne ko yow de taxu laa jag waaye yaa tamit kee de kee ma ne ba faaw Nafi ibn Ousmane mu wax ko Seydina Ousmane Seydina Ousmane ne ko araam na la fii ak déwén mu ne maa ngi bëgg a jege kat naa dem ci àll bi mu wax ko Seydina Aliyu Seydina Aliyu ne ko loo ko wax mu ne ko dama ne ko talaxtu ki ila xiin wàcc naa la ba diiru jamono. alluñ ne ko bu la neexee yóbbu léegi bu la neexee bàyyi ba ngoon mu ne kii fi dàq jàng waa woo ñeenti saxaaba yi ñu ànd ci rasulullah ñu ngi ñëw fekk waa ji toog ak jekk waa taaru su ma saana ñàkk day mel ni or ba wal këpp ca kanam nga bët yi rëy la ci ñu ni kukk la ci wax ne tàll dafa mel ni ku ndoxum wurus mooy daw ca lex ka ànd fi xaddihi ma azrubi sallallahu alayhi wa sallam ñu nuyoo waa ñu ne rasulullahi sama soxna lay waxtaana bu yàggul ma ni ko talaxtuki ila xiin wàcci naa la ba diiru jamono ma bëggaat ko ñu jàpp ba kër mii di ko laaj lu ma ci lislaam wax mu ni aram na ba faaw Omar ne ma fii 40 ans Ousmane ne ma fii ci la jóge ci ñoom ñew ci sa rakku ju bax ji di addu mi yor sa doom ji bari xam-xam lool te mën ko génne ma ñew laaj ko mu ni suma ma neexee yóbbu léegi bu ma neexee bàyyi ba ngoon rasul ni abbakar foo teg wax ji sidna abbakar ne ko yàlla wax ci alquran ni wala taalamun naba'uhu ba'da xiin yàlla nee di ngeen xam dara rasulullah ginnaaw tukkital àddina te waa la wax ñu ne ko wax nga dëgg de taxaw Omar lu tax nga ne ko fii ak ñun fukki at mu ne ko yàlla wax ci alxuraan yi hal ata ala al insaani na bi ba baa muy am ñiin fukki at lu mu am matagul ci loxoom mm-hmm. te ji baatu xiin la wax te xiin yàlla wax 40 ans la ko wax nga dëgg de taxawee mm-hmm. lu tax nga ne ko fii ak mu ne ko yàlla wax ci alxuraan ni tuuti ku la la kulla xiinin bi izni rabbiha yàlla ne na jëf ju baax ak njëmbat lu nangu duróo day joxe meññeentem jamono ju ne te waa ji baatu xiin la wax te xiin ya yàlla wax nawet ak nawet la moo tax man ko fi ak déwén xam ne ko wax nga dëgg de mhm. yow Alioune lu tax nga ni bu ko neexee yóbbu léegi bu ko neexee bàyyi ba ngoon mu ne ko yàlla wax ci alquran ni fa subhanallahi xiina tum suura وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تسهرون yàlla nee na sell ñeel na yàlla suba sell ñeel na yàlla ngoon te waa ji baatu xiin la wax te xiin nga yàlla wax suba la ak ngoon ñool màkk gis waa ji ne ko ci raw mun ko ëllëg lu ci dàq jàng waaye noonu am li sallallahu alayhi wa sallam ñu la jot ci yàlla mu madu sallallahu alayhi wa sallam وفي أول ليلة من الليالي أمله صلى الله عليه وسلم وخل أباب الجعيم وفت أباب الجنان ردوانيتي وقال خير خير من جلا برحمة ويبني على الله وقال شتابا وما في عجبا واتصلت الآيات ربانيتي وقرأت الكائنات بأعوانه وقال من رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله محمد وعرب الكعبة وهو إمام الدنيا وسراج الأنام وفرد وش المشاري إلى وش المعارف وبشر إيتان الأدياء بعدا بالظهور مثله الظلمة ولنا لسان آل كائنات جاء بارك الله ما شاء الله jërëjëf kenn du moom alayhi salaatu wa salaam kon ñoom seen preuve yëpp فليتك تعرف ما للخلفاء الأربعة رضي الله عنهم في كلمة الحين في التفسير والتبيين فيرد من الرحم أصحابي كالنجوم بأن مختديتم اهتديتم سما صحابة يي نيوي بديو أسماني كوكين كروي دينين تب مرابقي صحابة يوي رسيخ الخديم نيو جارا جوي أسمانا لدي جوي suuf ak leen di jooy ñoo ànd ak Seydina Muhammad dem na bi dafa dem fa xare amul mu dàq leen bu waatul mu dàq leen Usayru mu dàq leen Ghazwatu Safar mu dàq leen Badul Xitaal mu dàq leen Sulaymia مدخلين خيمقا مدخلين صريخ مدخلين غطفان مدخلين بحرا مدخلين حمرا مدخلين نظير مدخلين رقع مدخلين موعد مدخلين دومتو مدخلين مريسيا مدخلين احزاب مدخلين حديبيه مدخلين تائف مدخلين تبو مدخلين خنبق مدخلين خيبر مدخلين مو محمد رسول الله بالله لمن شهد البدر لله جفير صلى الله عليه وسلم واذكروا آه. اثار النبي لانه نعم نعم خلافتهم بعد النبي جميل بالله وعبده اها وعبده بسد وعبده بك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مدى نحو لله خليل بارك الله سك ما شاء الله يرنت بوب يانا يالا كو دولي بغلو سونو بغيل سي موم سونو بغيل سي موم يالا نكو يالا غنا دولي بوكي ايا خادم المختار لا تنتسبوا لا تنتسبوا فمن يلزم هل من من مختار لا تتسامحوا

Cheikh Biir Ndiaye mi nga xam si tey jii naa ni lii moo nekk ca boppam ànd koog ñoom alaaji Cheikh Baye ñoom alaaji Cheikh Adama Ba ñoom Samba Diop Serigne Mor ba dara mooñ moom Amar Kébé yaatu na daal ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax taxawaay bi rafet na alaaji Pape li ñu sàkku woon ci yow soxla xarit sàkku ci yow ba indi la fi matal nga ko yàlla yàlla fay la kon ñu bàyyi Abdou Aziz ak baax di julli ci sangu sangi ali salatu wassalam a ah di sant nak bis bi nga xamanteni mom mo fi dajal won tay ñu yag ko def ay at at mu ñew dak morom ja dañ ji amna na ci firit wane na ci firnde ñuy sant nak ñi nga xamanteni ñom la andalon mbolo programme bi diko dox ba exi fi so oustaz pap an ñew fi waxal na fi lu sedd guy nit ñi ah ñuy sant Adja hadin bay mi nga xam mo and ak ñun ne ci sunu kanam Adja Thiané sen Adja jey Cheikh vie ndjay ak mboolem ñun ko andal ñepp nak di gërëm nag képp ku fi tew nak def déplacement ñew ci ñun ko tuddee woon bési tey jii bu ma ko limee dinaa juum wala ma romb sama soppe waye ñi ngi gërëm ñepp ñu fi teewoon di santat yalla bu baax di gërëm pap and di ko ñaanal suñu borom yalla bàyyi ko ci suñu kanam ba bu déwénee ak jàmm ñu dajawaat ak mom daja bu na neex bi ndax yonent bi mom mo mel nonu lo ci wote ca kaw ca kanam rek lay dem ca kaw ca kanam rek kon ñi ngi sant ñepp di santat Adja Khady Mbaye bu baax suñu président bi ne ci suñu kanam te dawul wul deful len may xalla yalla yalla yàlla yàgg ko sunu kanam ñu yag ci ñu yag and ak mom and bi ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam ñi ngi sante di ñepp nak ma sha allah sha allah ci ko ci kanam lahi rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala sayidina muhammad ah sha allah ah, sañu édition ren bi ñoo ngi sant di gëreem ñepp ah, képp ko xamantene bi na japp na ci manifestation bi muy ci biir akibiti ñong lay sante di la gërëm di la ñaanal yàlla mayal la kattan ak wér bañu waat ci barke sayidina Muhammad en tout cas tey édition spéciale la édition spéciale ndax dañoo indi quelqu'un de spécial oustaz Pape an ñëpp bëgg ko nag à travers la TFM macha allah euh, sama xaalix yi na tey ji yenn ci tegal seen euh, seen bët seen bopp di ñaanal mom tam guddu fan ak yaram di ñaanal képp ko xamantene dina muhammad sallallahu alaihi wasallam di ñu wax ci mom ci lu baax ñu di ci tegu ñu di la ñaanal fan bu gudd ak yaram di la bàyyee ak sa xel nga di ñi gën di man di gindi yalla san ñako ko nako yalla nako yalla def ñoo ngi sant nak sañu présidente Adja khadijatu ta Taa Khady ak ñi nga xamante bi nak ñom ñoom ñom ñoko ñoo li ñuy wax rek ku lim doo juum wante matal ñi nga xamante bi ñoo ngi and ak ñom nak suba ngoon guddeeg bëccëg ci jëm sayidina Muhammad ñom xam nañu seen bop bu baaxa baaxa baaxa baax kon jaru kon di leen lim yalla na leen yalla fay wax fa dëgg am sañu xol sedd na di ñaanal sañu président Cheikh vie ndjay mom aussi mom mi nga xamante bi na toujours mom mom moy mobiliser goor ñi limay wax li dal kenn ku su nekk bay sa la nga ca def nag mu néew mu bari yàlla na la ko yàlla fay ci barke Seydina Muhammad jërë ngeen jëf sama xol dafa seet ba fi mu toll nii wax dëgg yàlla am xaw man nan laa nan laay santee daal mais yàlla fay jërëjëf. mbokki jullit yi wax dëgg yàlla kontaan nañ bu baax a baax a baax ci li nga xam ne ne moom lañ fi def tey di sant yàlla nag bu baax di julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di sant ñi nga xam ne nag ñoo ko jiite woon muy Cheikh Vieux Ndiaye ak soxna soxna xadi Mbaye wax dëgg yàlla amuñu seen pay ñu muñ lanu ñu mën a dékk lu bari lañu wax dëgg yàlla e, Pape Anit lan ko doye woon def na ko macha allah ñi nga xam ne ne ñoo ñëwoon ci mbir meet ñoo ngi leen di sant di leen gërëm ndax amuñu seen pay ndax woote na wuy si la loolu dafa rëy lool wax dëgg yàlla ñoo ngi ñaan daal ci màgg yàlla képp ko xam ne kii na ci béréb bi yal na yàlla fa say aajo yàlla yaa xam li nga xam ni ne moom nga mébét si sa xol yal na la ko yàlla defal di sant nag njiit yi bu baax a baax a baax ndax waa kër Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu nu organisé macha allah ñu doxale ko nii ñun ñëpp dañuy kontaan képp koo xam ne kii nga. te nga nekk fii tey ci biir Kébémer su xol sedd na suñu xol sedd na guy wax dëgg yàlla di ñaanal njiit yi daal yàlla taxaw leen ba déwén buñ ko fekkee jàmm mu gën a neexati ndax neex na ba pare di sant nag ñi nga xam ne ne ñooy ñoo ñoonu wuy si ndax woote ne wuy si la dafa yombul léegi suñu jamono ndax jamono ji dafa xat di sant yàlla nag bu baax a baax ndax service yi sax ñëw nañu ñoo ngi sant yàlla bu baax Cheikh na ay dara léegi la fi jóge ñoo ngi sant yàlla bu baax ndax kilifa yu baax yi nga xam ne ni ñoo nekk ci biir département bi yëpp ñëw nañu ah ñi nga xam ne ñoo fi nekk ay maire nekk fi ay ay ay nit ñu baax ñëpp fekk seen nañ xew bi ñoo ngi ñaan ci màgg yàlla képp ko xam ne ki ne ñëw na fi rek yal na yàlla fay say aaju ah cheikh bi ñoo ngi lay sant bu baax di lay gërëm loolu daal lañ ci amoon ci luñ ci wax ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm jërëjëf. na cheikh rajim bismillahi rahmaani rahim ginaaw bi ñu santee yàlla julli ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi sant mbokk julli di sant mbokk taalibe yi di sant bépp kilifa boo xam ne rek ñëw na fi eh, di jiital ci cant gi nag ki nga xam mooy présidente bi di Cheikh Khady ak ñi mu ko àndal ñoom maire Thiané ñoom Diera Gueye ñoom temps Gueye ñoom maire Khady la mbooloo mi yëpp rek ñu ngi leen di sant di leen gërëm rawatina nag ki nga xam ne mooy conférencier bi di Pape Anne wax dëgg yàlla ñu ngi koy gërëm di ko sant parce que wax dëgg yàlla def na yéeneem di sant ñi nga xam ni ñooy ustaas yi nga xam ñoo daan taxawee mbir mi bu daayara amee ñoo ñi ngi ci bu tuur amee ñi ngi ci ba affaire mën a taxaw ba toll fii muy ustaas Badara usage Mor Seck di santit euh, Omar kebe di sant tamit euh, Samba Diop di leen sant bu baax di leen gërëm ak Cheikh Mbaye gis nañ seen taxawaay rafet na trop ñi ngi sant imaam Moussa Fall di sant atu Ibadu Rahman di sant imam Moussa eh, Ndiaye ak oustaz Cheikh Ba bi nga xam ne moo fi nekkal waa Gerte Ardo ñoom ñëpp ñu ngi leen sant di leen gërëm di sant waa jamiya bi ñoom it def nañ seen kemtalaay kàttan def seen yéene ñoo yoroon organisation bi yow tim moo ci am ngay suñu frère di suñu lépp ah yore Kebemer TV ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax sa taxawaay rafet na ñu ngi ñaan yàlla daal déwén naree ñaaw yàlla na mel ni ren ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te yàlla gën ñu jàppale gën ñu tàppe xol yi ba ñu gën a mën a ànd ngir liggéeyal Seydina Muhammad ndax am na mébét yu bari yoo xam ni ñu ngi ko bëgg a def ndax tey jii bu ñu sañoon benn Muhammad du feebar waaye bu ñu gisee benn Muhammad bu tawat ñu mën cee taxaw suñ kemtalaay kattan bu ñu gisee daara joo xam ne war nañ ci def suñu dërëmit ñu yëkkati ko ñu def ko ci bu ñu gisee jàkk joo xam ne war nañ ci suñ def suñu dërëmit ñu yëkk ko ci def ko ci kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ah lu ma ci juum nag ci man la mais kàdd yi moom nit ñi matale nañ ko wasalaatu wasalaam ala rasulillah sallallahu alayhi Xadim Mbaye ginnaaw bi nu bàyyi ko fële nga xam ne fi lañ doon defee bisu Seydina Muhammad sallallahu alayhi Euh, te ki ko doon taxawee di Pape Anne jamono ji nag wax dëgg yàlla soxna si fas na yéene yëkkati ay kàddu sant képp koo xam ne yaa ngi wax sadu an la ilaha illallah waaye sant képp koo xamante ni si ni jàppoon nga ci bés bi waaye sant it mboolem ñi nga xamante ni si ni ñoom la ko euh, àndaloon yépp moom mel ni woote na waaye ñëpp it wuy si nañu ko waaye it wuy si nañu woote Seydina sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ni wax dëgg yàlla duñu euh, ko dalee def ba léegi at mu ñëw rek ndax ren nag moom da cee gën a neexati soxna Adja Khady nag mi ngi nii toog Euh, fas yéene sant nag euh, jullit yëpp képp koo xamante ni rek jàpp nga ci bés bi Adja Khady. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu waaw ah, sëñ Samba maa ngi leen nuyu bu baax a baax di la ziara di sant yàlla du julli waat ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xamante ne moo nu dajale tey jii ci bis bii di leen sant di leen gërëm ndaxte la macha allah ah, comme ni ñu ko doon waxee rek ah, yëfi Seydina Muhammad amul tànk ginnaaw tànk kanam rek lay am day avancer rek ci kàttan suñu borom suñu bisu tey bi nag ban dalee organiser ba nag ni si bis bi nu am te wax dëgg yàlla ak yonte mosuñu koo am ñuy bëgg di kontaan may bëgg di kontaan ci suñu association bi ñi nga xamante ni dañ maa jiital topp ci sama ginnaaw te mere wunu ma di fakkasalun ma lu ma leen wax rek ñu ne noonu la lu ma def ñu ne noonu la xooluñu defuñu dara kon nag ñoom dama leen di sant di ñaanal yàlla ñu yàgg koo def ay ati ati ati at di sant képp koo xamante ni rek ñëw nga teew tey ci ci bis bi te bis bi tey dafa ala daaw mi bis la te bis borom a koy defar te bis Seydina Mohamed la bis bi defaru na ala daaw mi na neex na ñëpp uy si nu kuy responsable tey ci dëkk bi yow teew nga tey ci sunu sunu sunu sunu euh, conférence bi tubarkalla kuy chef religieux tey teew nga tey ci sunu conférence bi surtout Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di Cheikh na Aydara mi nga xamante ni du tàyyi benn yoon saa yu nu ko soxlaa mi ngi suñu kanam lépp loo xamante ni rek Kébémer soxla na ko rek suñu gëstu dinañ gis seex na Aydara la macha allah moom nag mooy surtout Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ñëw jëmmal ko ñu koy sant ñu ngi koy gërëm di ko ñaanal yàlla gudd fan gu ànd ak wér ak mboolem jullit nag tropaa yi nekk ci biir mënuñoo wax te limuñu sunu sang yu baax yi nekk ci biir ku mel ni Cheikh Talibouya ku mel ni waa kër Cheikh Jimbira ku mel ni waa kër Sëñ Tou kër Xaadim Awa waa kër Jamia El Hadj Malick Sy tubaarkàlla macha allah ñëpp ñëw noonu su may lim nag dinaa duma matale ndaxte village yi nga xamante ni ñoo wër département Kébémer kenn wallewu ko ñëpp dikk nañu fa tubaarkàlla kon nag dana am sant ak ngërëm ci ñëpp nag di gërëm ki nga xamante ni mooy le premier magistrat de la ville de Kébémer muy Alaaji euh, Mamadou Lamine Thiam yónnee na une forte délégation ki nga xamante moom la yebal di ala Adja Birima Mbaye Birima Dieng tubaarkàlla macha allah moom mooy jiite woon euh, délégation bi tubaarkàlla macha allah Alaaji Ousmane Cissé directeur des mines tubaarkàlla macha allah Somisen taxawu na nam war a taxawe may nañu parcelle nee na dina nu tabaxal daaray waa kër naa moo sallallahu alayhi wa sallam kon li ci des nag waa diaspora bi ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm di ñaan ci yàlla. képp ku dégg suñu kàddu gi rek na nu jàppale ñu suñu daara ji su paree ñu utal nu nag léegi nag biyee Màkka dañ koy ñaan di fa ñaan jàkkatam ci biir ndax lépp yu fi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam responsable yi ñëpp teew na di sant nañ ñi nga xamante ni dañ leen ko marraine woon parrain bi Chérif Boy Aïdara tubarkàlla macha allah ki ci topp di sëñ Basirou Fall sopp Seydina Mohamed bu Njaaxa Fall borom rajo Kebs FM moom lañ ko tuddee. tubarkalla macha allah ku ci topp sëñ Axma Fall bu ndànd surtout sëñ sëñ Ibra sëñ mu di diina tubarkalla macha allah kon yaakaar naa ni ñëpp teew nañu de kenn desul ñu leen di ñaanal yàlla gudd fan gu ànd ku dikk rek tant Adja Fatou Mbaye dafa ñëw ak une forte délégation tant sama tante Aïda Thiam ñëw ak une forte délégation euh, euh, ñoomin euh, Aïssatou Lo ñoomin Anta Diop tubarkalla macha allah kenn daal desul kenn desul. Euh, Adja Cuba Diop ñëw na la macha allah man daal yaakaar naa ne kay kenn desul Adja Daba Gueye ñëw na la macha allah fii daal képp koo xamante ne woon rek joxoon na la lettre rek Adja Ndeye a Sarr HLM tubarkalla macha allah ñëw na ak une forte délégation. kon ñii Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam moo leen saf sant nañ leen gërëm na leen di sant sama goro bi nga xamante ne nag ci soo ba nëgëni si moom lekkul naanul mu ngi dëgg bëgg rek lépp baax rek. tubarkàlla Njaay fu bëgg a egg yow itam fa àgg waaye nag di di santaat nag di nag beral ñëpp nag cant di leen di leen yàlla waaye àndu àndu Babacar Diop ñu gën ko xam ci turu àndu télé te rajo bi yàlla nay doon télévision ay télévision yu bari moom yombal nañu lépp yombal nañu lépp tubarkàlla macha allah muy jox nañu sa def si bi xoolul gisul. bu ko neexoon tey jii fanweeri junni ngeen ma jox wala ñeent fukki junni ngeen ma jox waaye waxu ko dafa def participation ak na mu war a dikkee kon ànd fa sa nga bëgg sa rajo bi egg fa ñu de ko sëñ Basirou Fall Ndiakha sama xarit sopp Seydina Mohamed euh, borom borom borom borom taar bi borom jàmm ji nit ki nga xamante ne du tay ci Seydina Mohamed loo ko bëgg a naxe rek nel sëñ Basirou Fall nangam ci Seydina Mohamed rek bisub keroog sa xol sedd na sëñ Basir Fall kontaan nañ ci yow bëgg nañ ci yow yal na yàlla bëgg ci yow seen ndaw agsi na tubarkalla macha allah la nga waroon a wax wax na ko la nga jëfe jox ko ko jox nañu ko la mu ànd ak sëriñ moo sekk sant na nañu leen gërëm nañu leen moom daal képp ku dikk di gërëm waa association bi nag kenn desul yow mi nga xamante ne nag yow Samba Diop yaa ma yow di ma interview nii maa ngi lay sant maa ngi lay gërëm waaye duma fàtte Amar Samb Amar Samb mi nga xamante ni moo yore organisation bi la macha allah saa yu ñu organisé rek Amar Samb day ñëw ak na mu war a dikkee ànd ak ñi nga xam ñooy les organisateurs di recevoir nit ñi di leen teg seeni place kon nag yàlla mi borom jàmm te ku mu jàmmal nga am jàmm sunu association bi yàlla ci yàlla teg loxoom munu maa wax ba bàyyi nag te gërëmoo waa diaspora bi sunu association turandoo Seydi euh, sunu association sopp oustaz Papa Anne te ca ba Adja Abi nekk ca. nekk Italie di def lu baax di wax lu baax ngir jëm Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maa ngi koy beral nuyoo di ko beral ñi nga xamante ni ñëpp moom la boot du ma fàtte nag Aïda Kébé du ma fàtte Ami Camara Médoune du ma fàtte xale ay dara fa tubaarakàllaa macha allah mi nga xamante ni waa Kébé meer lanu Aïda Kébé waa Kébé meer la ami xadi xadi ay dara waa Kébé meer lanu tubaarkàlla nu jàpp ci bis bi Ami Camara Médoune mosuma gisee ak ñoom ku ci nekk la nga ma yënd ma ko defal. kon nag yàlla muy borom jàmm te ñu def ngir jëm Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla na leen yàlla yiir mbalaanum sutura yokku leen ba nu yëg kontaan naa ñëpp kontaan naa ci waa Kébémer kontaan naa ci li ko wër kontaan ci sama maire bi nga xamante ne mooy Adama Fall jóge ba Ndande Fall ànd ak une forte délégation ñëw ngir jëmmi conférence bi kon nag moom tam Fall fu mu bëgg a eggale dëkk ba yàlla na fa yàlla dimbali moom àgg fa ci barke Yonent bi sallallahu Adama Fall kontaan naa allah kontaan ci ñëpp. di wax nag asalaamaaleykum wa rahmatulah ndax wa jàngeen dugg bi yàlla ki nga ni moo doon def euh, conférence bi wax lingin yàlla euh, li ngeen bëggoon ci Seydina sallallahu euh, defal na leen defal leen ni ngeen ko bëggee mbooloo mi it wisi nañu leen waaye it mu mel ni am ngeen mbégte yéen ñëpp def ngi jëf ngeen ci Seydina Mohamed yëkkati ngeen seen alal def ci mën naan daal kontaan ngeen kontaan ngeen daal wax bis non bég fi bu doon passé ma xam kon passé na bég waaye wax tam ba te sama doom ji góor ji di Iba Amar Iba Amar boo ko gisee muy dox rek lay dox boo ko gisee muy demee ci développe lu développé dëkk bi ci lay dox Iba Amar du ñu sonn naa du ñu tàyyi naa du ñu dàcc naa foo woo Iba Amar rek jóg na ànd ak yow moom a jëkk informé comme quoi ni euh, nu mu di Ousmane Cissé nee na may ni leen kër goo xamante ni da ngeen ciy def daara yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom lu neex nit ñi rek loolu moo ko neex foo ko gis rek tubaarkàlla macha allah mi ngi dox lu baax mi ngi wax lu baax mi ngi wax lu rafet Iba Amar. mu bëgg egg mu yal na ko fa yàlla àggale Iba Amar tey bu ko nekkoon tey jii jël na avion yi dem yoonam bàyyi kër baayam gii moo ko saf kër baayam gii moo ko neex tantaam yi mu nekk ak rakkam yi mu nekkal ku waa fi leen jàppale leen Iba Amar foo bëgg a àgg yàlla na fa àgg yéen kontaan nañu daal danoo kontaan danoo bég ndax tey bi dafa ala daaw ba yëfi Seydina la ca rek la jëm. yëngutu rek. Hmm.

tubarkalla macha allah kon mu ngi noonu moom mii nag association bi amul murit amul xaadir amul tijaan amul laayeen yaa ngi dégg ñëpp même pied d'égalité ki ñëw tey ak ki ñëw daaw ak ki ñëw ren ñoo bokk même pied d'égalité c'est apolitique tam teg teg ndax ñu fi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la. groupe bi di soppee Seydina sallallahu alayhi wa xam ne lépp lu ngeen def rek foofu ngeen koy jaarale bi sant rek ak gërëm ndax ñun lii nga xamante ne moom lañuy ñuy dox mosuñu cee lekk ñun ñii. ñaari dërëm yi gën a ndaw mësuñu ko ci lekk dañuy dajale suñuy fukk ak suñuy juróom kay ak suñuy ñaar ko di def ngi jëm Seydina Muhammad def ay cas social nag di dimbali nit ñi te yàlla rek tax di jàppale turandoo Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te yàlla rek tax képp ku ñëw dis nu sa problème rek lépp luñ ca mën dañ ko def kon nag ñun tam ñu ngi tàllal loxo ñëpp na ci ñëpp jàpp na ñëpp jàppale dimbali nu ngi jëm Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bëgg nañu daara bëgg na nañu bëgg nañu bëgg na nañu jàkka ci biir daara ji bëgg nañu ay billet màkka kon taal na loxo les bienfaiteurs nañu jàppale te yàlla rek tax waaw ma dex naa loolu laa moom lu may wax boobu alhamdulilah sant ñëpp gërëm ñëpp macha allah di gërëm ñëpp. fàttewoo ah ma de yaakaar naa ne xanaa tudd naa ñëpp wala ku ma tudd rek na xam ne sama mbégte mi ëpp. Kébémer ak li ko wër lépp nag ah sama baay bi nga xamante ni mooy nuuta di dëkk dëkk. dëkk kii waaye Maka Ndiaye Baye moo duggee maa ngi koy sant di ko gërëm musaa Nger ci Nger Nger maa ngi koy sant di ko gërëm Seydou Diop ci ci ci ci ci maa ngi koy sant di ko gërëm ak ñi ko wër ñëpp nag ñi ko wër ñëpp kon damaa kontaan ba man xaw ma sax li ma wax lu la ñi ma jiital fakk salun ma benn yoon te nag fukki at ak benn du benn bis de fukki at ak benn ñu jiital ma lu ma leen nii ñu ne noonu la kon ñoom mënu ma leen a fay yàlla mi am pay nag. dañ leen yàlla fay duma dem ba bàyyi nag te gërëmuma sama yaay ndey Fatou Ndiaye moom moom moom monsieur Samb waa kër imaam Amsata Adja Kole Faye ñooñu dañ leen tudde woon démb ba tey dikkul monsieur le maire Mouhamed ja macha allah ah euh, monsieur le maire euh, kii jokkul Cheikh bu Diack yaa ngi dégg di gërëm El Hadj Bigué ñu koy sant di ko gërëm xam nga ku la defal lu baax danga koy wax te ku ci nekk ban demee ci yow la nga war a def yëpp danga xoo koo def kon ñu mënuñu leen a fay yàlla mi nga xamante ne mooy fay ku mu fay nga nga am jàmm yal leen yàlla fay ngir jëmi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. mel ni bu ñu jógee fii alhamdulilah dañuy daal di fas yéene dooraat euh, incha allahu ci kattanu suñu borom fas nañ ko ni yéene ndaxte boo seetee ni daaw Covid benn jàpp xam nga Covid bi kenn mënut a daje. suñu moo tax ñu sos panel yi. pour di mën a waxtaan ci suñu biir di mën a diisoo di mën a gisante yàlla dogal na nag alhamdulilah rabbil alamin ñu ngi sant yàlla julli Seydina Muhammad ndax feebar baa nga wàññeeku ndànk-ndànk bu yàlla defee nag comme conférence pare na dañu fas yéene nag dajalawaat nag ko daan defee di ko defee noonu ba nga xamante ni balaa déwén ci kàttan yàlla nañu ko fekk tal ko yàlla te benn kenn bañ a balaa boobaa ñu gën koo organiser gën koo préparer pour que bis bi gën a tee neex gën a jolli bi ma ci yokkee rek def buñu ma bis bi kenn daw tan tan wallahi waaw la ci ci bi ñu def waaw avancement la da sangu ba rek solo ba jekk rek ñëw rek toog fekk lépp sur place léegi bi yëf yi tasee rek kenn ku nekk daal te loolu lépp nag wax dëgg yàlla ak bi grâce à monsieur le maire nag alhamdulilah grâce à monsieur le maire parce que def ci waaw ci développement la ci lu ab dëkk la dégg te dañoo bég de Samba kontaan nañu de law la cat jërëjëf jërëjëf jërëjëf xam naa kon kàddu yi bu ñu ko toppee dee daal di gudd lool nu sant ñëpp ngërëm ñëpp mboolem koo xam ne teewoon nga ci bisu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne Adja Khady Mbaye nekk ci kanam ànd kook mboolem ñi nga xamante ni si ni tey ñoom Adja Thiané bu ñu limee dañuy juum euh, ak ñi mu ko àndal ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp nga xam ne am na yéenay Kébémer ñëpp ñëw euh, ñu liggéeyal Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bis bi nag tey am lu ci dolliku ñëpp bég ñëpp kontaan kii ko taxawee di Pape Hann Kébémer yëpp bég Kébémer yëpp kontaan jànkat yi jàng euh, yàlla joxekat yi at yi joxe nañu joxe nañu ba li ñu jeex na waaye lépp ci Seydina sallallahu alayhi wa sallam bu subaak jàmm ñu amaat ko insha allah kon Adja daal ñu sant la gërëm la ñaanal la yàlla li nga bëgg ci liggéey bi metti na nag lool metti na nag lool yaa ngi jànkoon teeg lu nekk alhamdulillahi rabbil la waaye nu muñu rek euh, fas yéene liggéeyal Seydina sallallahu alayhi wa sallam buñ ci jógee ne fas yéene dooraat euh, nu nag sunu caméraman bii di Ndiaye di Kébémer TV nga xam ni moom wax dëgg yàlla alhamdulilahi rabbil alamin yu mel nii fu mu amee rek soo bëggee mu siiw rek jokkool ak moom kon ñu ñaanal ko yàlla bu baax baax liggéeyam fu mu ci bëgg yegg rek mu yegg fa xam bu fekkee boo na ko mayee rek nu dugg ci biir du ci mel ni ñoom Adja